di leen soññwaat di wax ne suñu bisu tay bi moy dajalo président sur ci ndigalu président ci solo nga wara a wat président le 20 jeudi pour inauguration Ila Touba ndax président ci solo mom yaakaar ni lol mom ken ken mënu ko ci mobilisation rek xam nañ lan la représenter ci parti bi xam nañ lan la ay jigéenam man kon dañuy gëna soñ wa suñu bokk jigéen di len xamal ne président deseelatuñ dara ñun wa département de Mbacké inauguration Ila Touba bi nga xam ne mooy projet phare boo xam ne moom moo ëpp budget ci plan Sénégal émergent mu indi ko Touba di ko koy inauguré ñoo ngi pre ñu ngi woo jigéen ñëpp di leen soññ ñu lal président tapis rouge teeru ko tadagal ko xam ne kontaan nañ ci lim ñu defal mënuñu koo fay li ñu koy fay mooy fas yéene mobiliser liggéey falaat ko o premier tour en janvier en février 2019 di soñ ñëpp nag waa njabootu président Cissé Lô ci département bi ñëpp ngi nii commune yëpp ñëpp a ngi nii toog ñoo ngi ñaan yàlla daal egg ci bisum egg ca bis ba dugg ci bisum laay rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ba tax na ñun Amazone yi nga xamante ne si ñoo nekk derrière le leader Moustapha Cissé Lo mi nga xamante ne si mooy sunu baay mooy sunu xarit di suñu leader au niveau du département de Mbacké euh, euh, le roi politique di Bawol comme ni ñu koy faral di waxee chaque jour euh, kon su président wootee lu mel ni inauguration defe naa ne ay ñooñu Moustapha Cissé Lo ku ne xam na li mu euh, euh, doon au niveau national ak international euh, Macky Sall yëg na waa Touba jàppale na waa Touba ba tax na ñun au retour amul leen lu ñu koy mën a defal lu dul réserver ko un accueil chaleureux. ñu ànd ak euh, quelques délégués du monde rural ñu ñëw teew fi donc euh, le coordinateur Ibrahima Diagne est là le coordinateur Abdoulaye Gueye est là le coordinateur hmm, Ndongo Sow est là donc euh, ak man mi El Hadj donc ñu ñëwoon rek pour woyu si xam le na ñu ngi aussi lancé appel si commune rurale yëpp. ñu def benn mobilisation boo xamante ne ni vraiment dañuy ñëw aussi euh, pour teeru suñu président de la république euh, son excellence Macky Sall ci jëf ju bi nga xam ne daf ñu ko defal surtout nag les communes yooyu nga xam ne fa la autoroute bi jaar am nañ ci vraiment une satisfaction bu nga xamante ne nii vraiment euh, dañ koy jaajëfalee président Macky Sall donc loolu aussi la ñu amoon tey ñëw fi pour wax ko seede ko si ay témoignages yu nga xamante ne ñu ngi ci Euh, di santaat yàlla bu baax a baax ci ndaje mi ñu jëm di le 20 décembre inauguration Ila Touba président dafa tegoon xeer wi en janvier 2015 su ma juumul euh, booba Serigne Sidi Mokhtar moo fi nekk ñu ngi ñaan suñu borom dolli ay leeram te dolli ñoo tas ci barkeem tey jii jamono di dox ba yàlla dogal liggéey boobu. Sénégal yépp doon wax wala ñenn ñi doon wax ne mënul àgg wala diir biñ ko àppal du fa àgg yalla dogal ci ci coobareem liggéey bi àgg muy Ila Touba ñu war ko inaugurer le 20 décembre bi di ñëw ci turu président Moustapha Cissé Lo di président du parlement de la CEDEAO nek timit premier vice président de l'Assemblée nationale ci la ñuy waxee ñuy wo bép militant ak sympathisant bo xamante si rek da ngay safo turu Cissé Lo yéene bi nga xamante ne si président am na ko ci dëkk bi ñu ngi leen di woo ci bis boobu ñoom ñëpp ñu génn teeru gan gi mu ñëw comme ni ko Serigne Mountakha diglee ndax tur wi dañ ko moom te bokkuñu ko ak kenn illaa Touba lañ wax waxuñu illaa feneen kon képp ku dëgg dëkk Touba même boo deful politique sax boo déggoon ñu ne illaa Touba bu fa Serigne bi wootee da ngaa war a bàyyi sa yitte ñëw sëriñ bi woote na fa ñun nag kenn duñu fa jiitu ndax bu dul dara président Moustapha Cissé Lo daarul Minam la dëkk. sëriñ Mountakha mooy seriñam kon bu sëriñ bi wootee moom tamit ak ñi nga xam ne ñoom lay àndal ci yëngu ji yu mel ni dañuy bàyyi luñ doon jàpp ñëw ci ñi ngi woo jigéen ñëpp ñi muy àndal di woo jeunesse féminine bi muy àndal ak jeunes yi nga xamante ne ñoom lay àndal monde rural bi aussi kenn demul ñu des ñi ngi leen di woo en tout cas bëgg nañ mu doon une mobilisation exceptionnelle comme niñ ko daan defee yi fi masa jaar yëpp amul benn buñ ci des ginnaaw bii nag liggéey la boo xam dafa àgg ñu di ko jébbal si Serigne Touba kon taalibe Serigne Touba yi nga xam ne dañu ànd ak Moustapha Cissé Lo di yëngatu ñoom bu leen ci kenn man buñ ci des ginnaaw kon nañ ci góorgóorlu bu bis ñu teel a dem nañ bokk ci ñi fay njëkk waaye nañ bokk tamit ci ñi ci am solo en tout cas ñi ngi woo Sénégal yëpp ndax ne bis boobu Touba mooy nekk centre du monde adduna si yëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel te gëm nañ ne tamit teraanga ju melni. kenn mësu koo jëmale ci ab dëkk kon bu président Macky Sall amee yéene ju toll noonu projet bu toll ne 416 milliards amul ci suu région bi gisuñu ko feneen mu jël ko jëmale si ko Touba kon tamit ñi dëkk Touba war nañu génn wan président ne ko li nga ñu andil bëgg nañ ko waaye li nga ñu andil tamit ñor nañu kon loolu nañ ci góorgóorlu bu baax a baax.